dafa wax ne koor moom mën nañ ne ci gàttal ñaari farat rek la am benn ba mooy yéene yéene ji moom ci guddi gi la war a amee guddi gi mooy fi jant bi soyee ba fajar fenk diggante boobu ci lañ war a yéene su fajar xasee fenk te yéene woonoo koor kon yéene koor wéy na du tee nag bu fekkee da nga xamutoon ne weeri feeñ na ba nga yéene bi nga xëyee suba rek ñu wax ne ah weeri de feeñam na kon bis booba da ngay bañ a lekk bañ a naan te fay bis booba ndax ñàkk fanaanoo yéene ji ci guddi ga farata ñaareel bi gannaaw yéene mooy rek daal di bàyyi lépp loo xam ne day dog koor kon nag na daal di bàyyi lekk ak naan ak joteeg góor ak jigéen ak tay ko ba noppi di waccu na moytu daal dara jaare ci ab noppam wala ci bakkanam wala ci bëtam jàll ndax lépp loo xam lu ruy la lépp lu ruy jàpp nañ ne bu xasi àgg ci baat bi rek moom koor ga dog na bu fekkee ne nag moom nekkul lu ruy moom di ki ab dërëm wala wax xeera bu ñëwee ba ca baat ba mu fexe ba yàbbi ko moom kon koor ga du dog ba tey na moytoo tux tux da yàq koor lépp luy nuru jote góor a jigéen di ci laalante ci yaram ba fóonante ba tax man yu génn ba mas yu na ko moytu su ko defee nag ba mas yu génn wala man yu génn daanu ko leeral na moytu itam jaar na ci buntu suuf bi lu ruy bu mu àgg ca baax ga bu amoon lu mu jaarale ci buntu suufam ba mu jàll ca baax ga te fekk ba lu ruy ba tey it koor gi dog waaye nag koor gi du tee mën naa pikiru li aay daal mooy ñu samp koy biteel defal ko loo xam day wecci lekk ak naan ku ñu samp ay biteel moom ak yu demee noonu nga xam day wecci lekk ak naan moom du mën a ànd ak koor ga day bàyyi rek ñu defal ko loola ba mu tane bu àggee ca mën a fay nag door a fay bala laa ko war a war nag waxtu fajaroo fekk nga ànd ak sa sago waaye fekkee ne boobu da ko fekkoon di xam wala mu fekk ko muy say wala mu fekk ko ci ak ndof goo xam ne xamul fu mu nekk koor waru ko te bu waree noonu yooyu itam kenn du jàpp ne bis boobu war na ko faaw da koy fay rek koo xam ne jamono yi fajar di fenk ànd ak sagoom bis boobee faw rek doonte likkut naanut du teere fay bis booba bu fekkee ne nag waxtu wa fajar di fenk ànd naag sagoom ba teewlu yéene ji gannaaw ba nag mu xam mbaa lu mel ni xam ba tàggoog sagoom dañuy seet ba xam bu fekkee la ëpp ci bis ba mbaa lépp bis ba da koo xam kon bis boobu faaw da koy fay koor ga du doy bu fekkee nag noonee mu teewlu woon yéene ja ca fenku fajar gannaaw bi sax xam na waaye boo seetloo bis ba genn wàll ga rek la xam mbaal mbaa sax lu matul genn wàll ga la xam kon koor ga baax na du aajowoo mu di ko fay waaye daal moom bu xamee lépp bis ba baa la ëpp ci bis ba moom teewlu gam teewlu woon yéene ja ci waxtu fenku fajar du tee mu fay bis boobee kon bala noo jàll nu dellu waxaat mbirum waccu ndax nee na woon bàyyee tey waccu bokk na ci faratay koor nga xam ne kon su wooree ba noppi tey ko waccu li kiy wax looju kon moom koor gi day yàqu su fekkee nag waccu ma tëyu ko ni ki daa siburu rek waccu bi tàmbalee génn ñu seet bu fekkee am na ci lu mu wanaat te mën na koo bañ a wanaat loolu dana dog koor ga waaye nag bu fekkee wanaat ci dara mbaa la ca dellu moomu daa dellu te mënu ko woon a yàbbi kon koor ga du aajowoo fay koor ga doy na jigéen bu xasee gis dereti bërëg mbaa dereti wasin araam na ci moom mu woor waaye nag du tee dana fay koor ga julli kay lañu wax ne moom du ko fay waaye koor gi moom faaw da koy fay moom mi woor nag su ko wóoree ne bu laalanteeg ka muy séen mbaa mu di ko xalaat du tax dara génn ci moom du masiw du maniw kon daañu sib rek laalante ga wala xalaat ga ndax nekkoon ca leneen lu am njariñ moo ëpp solo ci moom waaye nag bu fekkee wóoru ko ba xam bu laalante wala mu xalaat mën naa andi génne masiw mbaa maniw kon laalante ga araam na xalaat ga araam na su fekkee nag def na loolee muy laalante ga mbaa xalaat ga ba mës yu génn kon fay rek lay def di ca kafaarante waaye su mën yi génnee moom day fay ba noppi kafaara boole ca war ba noppi nag di mos da cin la saf wala tàngal kafe mbaa leneen di mos ba xam saf naam safut sib nañ ko ndax dañuy bañ mu rëcc jàll kooram dal di dog ba tey sib nañ mu woor ba noppi di coow coow lu bari loo xam ne amul bàkkaar sax waaye amul tuyaaba de sax bu dee wax yu am bàkkaar moom daa araamoon njëkk koor gi ñëw te bu koor gi ñëwee day gën a diis ëpp bàkkaar waaye nag jekk di waxtaan waxtaan yoo xam ne dara sikku jë waaye nag amul tuyaaba ay caaxaan rek la wala bu wooree sëb nañ ko bu wooree nag jekki-jekki wàcc ni ma ko waxe woon léegi wàcc moo xam ne teyu ko da ko rëcc rek te it wanaatu ci dara ci gannaaw ba mu ko mënee yàbbi koor ga baax na fay du ko ca war ba tey bu ko weñ saraxee jàll dara du ko ca war ba tey koor ga baax na muy liggéey ci lu am pënd mel ne muy liggéey ci ciment wala muy liggéey ci wàll ci machine yi wala yooyu demee noonu pënd ba koy solo jàll dégg nañ ko ko du wàññi dara ca koor ga bu awee ci yoon yi sax fekk yoon yi bari pënd pënd ba di ko solo di demit dara du ko ci wax ba tey may nañ ko bu wooree muy soccoo socc bu wow dañuy bañ socc bu tooy nag ndax bu muucoo ndox ma bu muucoo ndox ma mu jàll koor ga day dog kon na soccoo socc boobu te bañ a soccoo socc bu tooy ami janaaba ci guddi gi te sangu ko ba fajar fenk du yàq dara ci jëmmi koor ga lay aay daal mooy bu yeexamtaloo sangu ba julli suba ga raw ko su loolu laay andi bakkaar bu rëy ci yeexe julli ga ba mu raw ko waaye jëmmi koor gi moom bu yendoo woon janaaba ja ba jant bi sooy tuddee jëmmi koor ga moom baax na xanaa julli war na julli te julliwu leen rek mooy doon bakkaar bu rëy rëy bu nelawee nag gént man yu génn ci moom du yàq dara ca koor ga koor nelaw gént génne sobe dara nekku ja gépp koor goo xam ne des ko war a sësale boo xasee yéene ca jëlbeen ga rek genn yéene ca doy na ni ki ramadaan boo yéenee ci guddi gu jëkk gi rek génn yéen doy na du aajowoo guddi bu ne ngay teewlooti yéene ja lu leen dangaa dem ba yàgg am lu tax wóoratoo woon mbaa boog dem nga ba yàgg nga am ngànt lu la may nga bañ a woor yooyu jamono moom su fekkee jëloo ngànt la te ngaa susulee woor it du tey rek nga war a teewlu yéene ji guddi gu ne mel ne weeru koor ngay woor ba yàgg nga siburu siburu soo xam ne yoon mayoon na la nga bañ a woor waaye teewlu yow nga jéem a woor rek li feek ngant lay jeex guddi gu ne nga war a yeesal yéene ja gannaaw bu ngant la jeexee nag boo yéenewaatee benn yoon rek dal nay doy ca la ca des ca koor ga ni ki ko tawatoon wér wala ka doon tukki ñibbisi na des ca koor ga bu ñu yéenewaatee benn yoon rek yenn yéene ja doy na bu fekkee amaatuñu leneen ngànt lu leen may ñu bañ a woor ka amoon ngànt daal bu ngànt la jeexee ba mu tàmbaliwaat woor genn yéene ja doy na tu aajoo guddi guddi muy yeesalaat yéeneem lu may nag mu amaat leneen ngànt loo xam ne mayati na ko bañ a woor su boobaa bu jëlum sañ-sañu bañ a woor ba it di woor di it du tee guddi guddi moom ba ngànt lay jeex mu war di yeesal yéene ja bu dee koor boo xam ne nag moom tegale nga warul mel na ngay woor ñetti fan ci weer wu ne ak yu demee noonu kon guddi guddi moom ngaa war a yeesal yéene ja yéen rek njëlbéen ba benn yoon du doy sopp nañu bi jant bi soyee ba nattablee doo ko nga dog fa saasa bala ngaa julli timis xëdd itam dañ koo taamu lool sopp nañ ko nga def ko te yeexe ko boole ci ndax bu xaaju guddi jotee rek waxtu xëdd moom dugg na waaye la gën mooy la ci gën daal mooy nga yeexe ko ba nga xam ne soo xëddee ba noppi sa digganteeg fenku fajar la fay des du war a sori juróom-ñetti minit mbaa fukk mbaa fukk ak juróom. yéen téere yi sax dañ daan wàññi gaawe dog ak yéexe xëdd ak tey sawal am nañ ci jëpp wax ju amul tuyaaba muy ay sunna muy ñett waaye nag bu ñu nee sopp nañ gaaw a dog it day fekk rek mu wóor la ne jant bi sona booy na table jant bi sona am suut na nga moytoo dog ndax boo dogee te amaatoo ci lu wóor ne booba jant bi soowoon na faaw nga war a fay bis booba xëdd gi noonu la loo yéex yéex xëdd na la wóor ne fajar fenkagut booy nattable fajar fenk na am fenkut bul xëdd bul laal dara ci lekk mbaa naan soo dee sikki sàkk nag ci fajar fenk na am fenkut te teewulaa xëdd gannaaw ba boo ci amaatee lu wóor ne booba fajar fenkutoon kon du aajo woo fay waaye bu fekkee amaatoo ci lu wóor da nga war a fay bis boobu nee na nag gépp koor goo xam ne farata la ci yow moom boo ko dogee rek faaw nga war koo fay moo xam dog ga yaa ko tey wala da nga fàtte rek ba dañ la caa forcé fay ga du tee moom nga def ko liki bu dee ramadaan wala muy koor goo xam ne warul woon waaye yaa ko nisaroon warlul ko yàlla wala muy xeeti kafaara yi ndax lu mel ne kafaar ramadaan am na koor lu mel ne kafaar ak rey am na koor ak lu mel ne kafaar ak dihaar yu mel noonu yépp daal saa yu dogee koor ga rek war koo fay li mu wax ne gépp koor goo xam ne farata la boo ko dogee rek war koo fay danañ ci génne su fekkoon dafa nisër ay fan warlu ko wooral yàlla taràññeel fan yooyee ba mu ci àggee nag mu dog ca dog goo xam ne fàtte rek a tax mbaa boobu mu àggee ca fan yooyee mu jigéen gis ca baax mbaa ba mu ci àggee mu tawat ca loola kooru farata la woon waaye ndekam da koo ràññeeloon ne ay fan sàngam ca nisër ga loola kon wàcc na ko du jar mu di ko defati du ko fay bu ne woon nag ni sëral naa yàlla bu woor benn fan mbaa ñaar mbaa ñett te ràññeelu ko ci ay fan sàngam noonu rek la ko waxee kon moom bu dee woor benn bis boobee mbaa fan yooyee bis bu mu ca doge rek doonte ak fàtte la it teyu ko it dutee rek na ko fay su ko defee nag alamaan bi moom dog ci weeru koor rek ci lay am waaye geneen koor gu mën doon bu ca dogee te tey ko it du tax alamaan fekk ko ca bu dee ci ramadaan ba tey lay tax alamaan war ko ca mooy mu tey lekk mbaa mu tey naan mbaa mu tey génne man yu moo xam ci jote la moo xam ci yee sabab jote la yooyu moom lu mu ca def rek alamaan daal di koy war bokk na ci tax nag mu war a fay ba noppi alamaan war ja mooy wàcc yéene ja lañ tabaxoon koor ga mooy yéene ja su yéenee ba yàgg ba ci biir koor gi mu wàcc yéene ja ne maa yéene woon yéeneetuma benn wax na ko ci làmmiñam mbaa xol ba loolu la ca fas kon ba tey koor googu dog na da koy fay ba noppi ñu alamaan ko boole ci mel na rek ci guddi gi déggoon na lu ko doy ne weeri feeñ na koor itam la xëye woon waaye dafa déggaat ci bëccëg bi lu yàq am xelam mu daal di wàcc yéeneem wàcc ga yéene joojee yàq na koor ga moo xam wax na ko ci làmmiñam moo xam waxu ko gannaaw bu ci amaatee lu ko wóor ne ah lañu waxal biir kër dëgg la weer yi feeñoon na it bis boobu moom faaw da koy fay te it ñu alamaan ko boole ci ndax wàcc ga wàcc yéene ja nga xoolaat nag li mu wax ne lekk ak gimiñam wala naan ak gimiñam dalaa bëgg xamal ne la su fekkoon ne fexe na ba jàllale lekk mbaa naan waaye jaaralewu ko ca gimiñ ga feneen la ko jaarale la muy doon doon ramadaan bañ na kooram dog na it du tax alamaan war ko ca bala ko alamaan war rek mu lekk ak gimiñam mbaa mu naan ak gimiñam mbaa mu tay ko def luy génne maniyu mbaa mu tay ko wàcc yéene ja nga xam ne moom la yéene woon te tegu ko ci fu wér a wér wàcc gam wàcc yéeneem mbaa lekkam lekk mbaa naan gam naan mbaa ñàkkam ñàkk woor bu fekkee da ko taawil ci sañ naa ko rek waaye dëgër bopp taxut te gis nañ ne fam ko sëskat fu wér la fu dëgër la ba tey kon alamaan du ko ca war mel ne da koo fàtte woon lekk mbaa mu naan nga xam ne kon bis boobu moom faaw da koy fay mu wëlbatikuwaat nag lekkaat te tey ko waaye daa defoon rek ne moom xasee lekk mbaa mu naan ba kooram dog mën naa wéyale bañ a jàpp koor gi xamutoon ni rek moom booba it daa waroon a jàpp koor ga noona bañ a lekk bañ a naan loolu kenn du ko ca alamaan fay rek moo ko cay war ba tey bu fekkoon ni jigéen deretam daa jeex njëkk fenk fajar mu yéex a sangu nag ba fajar fenk tax mu defe ne moom bu wooree it koor ga du doy ba tax koo bañ a woor loolu ba tey kenn du ko ci alamaan fay rek moo ko cee war waaye nag su fekkee ne fa mu sës ak ñàkk wooram ba fa mu sës ak dog wooram dafa doyee di loolu moom faaw rek mu war a fay ba noppi ñu alamaan ko boole ca ñàkk sës sësuwaay bu dëgër moom def na ko misaale jigéen ji xamal na ne bi sàngam bu ca masaa àgg ci la daan gis baax muy reegal bis boobu bisu bu woor la nag mu ne tey du ma woor ndax xam naa ne baax ba ma daan dikkal moom ci la may dikkal kooku nee nañu su ko baax ba dikkaloon ca bis boobu dutee mu war a fay bis boobu ba noppi ñu alamaan ko boole ci wala boog nit ki am na si bur su ko daan dal mu takk ko ci waxtu sàngam la ko daan dal mu ne nag bis sàng duma ko woor ndax xam naa ne bis boobu ci laa daan siburu kooku bu ñàkkee woor siburu safar ñëw jël nañ ba ñëwut du tee mu xëy ba noppi ñu alamaan ko ak nag ku gis weeru ramadan wi mu wër ko ne suba bisub woor la ba mu ko waxee nag gëmuñu ko tax moom mu daal di bañ a woor kooku faawu day fay ba noppi moom itam ñu alamaan ko ndax bu ma xasee jàkkaarloo weer moom war na ko wóor ne suba moom da ko war a woor muy ci ramadaan muy ci lu bokkut ak ramadaan a ci yem soo wooree ba ci biir nga amee ngànt loo xam ne soo dëwut ñàkk sa bakkan mbaa ñàkk ab cër ci sa yaram koor ga day war nga dog ko doo sañ a xaru doo sañ a teg sa bopp dis wuréy woowee su fekkee ne itam doo ca faatu doo ci ñàkk ak cër waaye soo dogut dana metti ci yow kon am nga sañ-sañu dog ba tey ramadaan boo ci doon tukki tukki bu mat doxu wàññi te it tàmbali nga tukki ba laata fajar di fenk te it naka jekk nga amoon yéene bañ a woor sart yi bu ci dajee kon sañ ngaa bañ a woor donte xam nga ne sax da nga teel a àgg fa nga jëm te doo sonn mel ne waaye yooyu jamono nag koor ga moo gën ndax ndegam doo ci am ab coono doo ci sonn moom koor gaa gën kon nag nga seetlu ne bu la yoon mayee nga bañ a woor ci sa tukki bi waaye yow yaa dogu ci woor kon doo dem ba ci biir rek nga jekki-jekki ne yoon may na ma ma bañ a woor kon daay dog déedéet da nga xas nga dugg ci koor gi moom lay tax nga sañ a dog rek mooy nga dem ba ci biir nga àgg ci mën laa ñàkk dog boo ko defut mu metti lool bopp ni ki faatu mbaa ab cër yàqu ci sa jëmm bu dul loolu rek faaw koor ga ngay wéyale amal nga nag sañ-sañu ci guddi ga nga yéenee bañ a woor wéy ca noona waaye boo xasee dugg ci koor gi moom dem ba ci biir nga am ngànt rek lay tax a dog mooy tax nga sañ a dog waaye doo sañ a jekki-jekki rek ne yoon may na ma ci ëpp tukki laa nekk mën na maa dog koor goo xam ne moom da nga koo coobarewu rek waaye warula ci genn wet moom itam boo ci xasee dugg day soppiku warugar nga xam ne dana araam nga dog ko te tey ko ndegam amoo lor amoo ngant amoo lay teeweele koor ga ni ki tey rek da ngaa waroon ngir yàlla ci bëccëg rek nga gis lekk gu la neex ba naan gu la neex rek nga daal di bëgg a dog loolu boo ko defee da nga def lu araam te it da nga ko war a fay boole ci waaye nag bu fekkoon ne koor gu demee nii nga xam ne ngir yàlla rek tax nga di ko def waru la da nga koo fàtte rek daal di koy dog kon moom da ngay wéyale rek koor ga te da nga am tuyaaba ja incha allah ba tey boo ca wéradi woon tax nga dog ko it fay di la ca war daañu la bindal tuyaaba ja incha allah ndax yéene woon nga ba dogu ca ba nekk ca ba ca biir da ca des moom dogal baa ñëw rek fay waru la ca dara waru la ca te da nga am tuyaaba ja incha allah laa fil xëyri ji mu wax dafa jublu laa yaqdi fi xëyri ma dukkira wa huwa an nisyaanu walhamdu li darurati saa yoo xam ne koor ga kooru coobarewu rek la dog na ko it te tey ko waaye ngànta ko waral mbaa boog fàtte rek tax mu dog ko kon fay du ko ci war te dina jot tuyaaba ja insha allah ku dog ci weeru ramadaan te kafaara war ci boole ja kon kafaara gi yetti anam la yoo xam ne mooy tànn bu ko ca gënal te loolu mooy woor yaari weer sësale nga xam ne su wooroon weer dem ba ca ñaareel ba bu mu des benn fan mu dogit day tàmbali war rek waaye tegal ak yaari weer yi moom lu war la mënta ñàkk benn ngoog ñaareel bi nag moom daanaka amatut te mooy goreel ab jaam ndax ndegam mbirum jaam moom amatut mbaa néew na daanaka boobu mënees na koo génne bi ci des nag te moo ci gën mooy leel juróom benn fukki miskin benn miskin bu ne mu jox ko ab liibar mudd xaw nañ koo mën a jàppe ab liibar dañuy seet nag lañu ëpp dunde foofa ca lay génne liibar ba ne bu dee fii mel ne na ceeb mu ëpp ci dunde gi foofu la yemale buntub koor mu jàll si nag ci acc